jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte nu koy defee àllarba bu nekk dégtal leen seen émission nga xam ne moo di décryptage may faral di wax ne dañ fiy jàngat ay poñ yoo xam ne lu ñu ci jublu moo di dalal fi ñoo xam ne buñ ci génnee xam-xam ñu ñuy seetaan mën ci jëlee njariñ tey seen émission décryptage mi ngi fas yéene waxtaanee coow loo xam ne dégg ngeen ko jamono yi moo di dogal bàyyeekoo na ci direction générale des élections ki yor seen communication. Bernard Casimir Cissé def jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi wax leen ne kii di Karim Wade bokkul ci liste électoral yi kon daanaka mënut a doon candidat parce que dañoo changé ci code électoral bi ne pour nga mën a doon candidat foog nga doon électeur waa parti démocratique sénégalais ñoom it def li nga xam ne moo di seen conférence de presse démonter argument yooyu dellu si waat ci condamnation. ki nga xam ne moo di Karim Wade ñu laajte ci mbiru xalifa Sall tamit ñu gis ne ñu ne il est en sursis parce que moom procès am da war a dem cour d'appel le 9 ak li ciy topp ngir ñu waxtaanee loolu yëpp nag ñu dajale kan yooyu ñu toog ku nekk war a mën a génne sa xalaat ci mbir mi. ma mbégte ci loolu dalal fi maître El Hadj Amadou Sall mi nga xam ne mi ngi bokk ci parti démocratique sénégalais di avocat yàgg ñëw teew suñu plateau. am mbégte dalal fi Moussa Tine Moussa Tine mi ngi nekk alliance démocratique Penco euh, nekk euh, farando ki nga xam ne moo di xalifa Ababacar Sall am mbégte dalal fi Babacar Fall moom GRADEC la nekk GRADEC benn kuréel la bu yëngu ci wàllu démocratie participative société civile la bokk ñu leen di dalal saa su nekk ñoom it ñu am ci xam xalaat ci réew mi ni muy doxee am mbégte dalal fi suñu xarit Zator mbay Zator mbay mi ngi bokk ci AFP ministre conseiller nekk ci Benno Bokk Yaakaar laaj bu njëkk bi moo di Amadou Maître gis ngeen li nga xam ne moom la Bernard Casimir si wax ban jàngat nga ci def. Euh, xëy na wax bi dina nekkas euh, bëri ki démb dafa am benn soxnaaw wax mu ne ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mooy bu nekk génn dafa am benn réunion secrète bu am ministère de l'intérieur ministre de l'intérieur ma nga fa directeur de cabinet directeur de fichier électoral directeur ñu daja def fa réunion li ñu wax journal bi wax ne lenn rek lañ fa doon wax naka la fexe ba Karim du bokk ci jongante yi ak du nekk ci liste bi kooku ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi la journal bi wax dañu teg ci ñaari fan muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar procureur spécial bind lettre greffier en chef bu tribunal pour mu yónnee ko casier judiciaire u Karim gars yi ba léegi weddi wuñu te duñ ko weddi waaye man su ma ko waxee ëllëg ñu weddi ko kon ay nit suñu dajee li tubaab di wax association de malfaiteurs parce que ay nit suñu dajee di daje di xool naka la ñuy jalgatee yoon groupe boobu groupe bu caay-caay la ak groupe bu njubati parce que damay wax dara fii ñun ñëpp Babacar Zator Moussa ak yow ñun ñëpp inscrire nañu ci liste électorale ñun ñëpp amul kenn ci ñun suñu lay inscrire ñu laaj la sa casier judiciaire laajuñu la ko laajuñu ko keneen sama baat ca kaw ku ma indil kaamil ma dóor ci sama loxo Macky Sall kenn laaju ko casier judiciaire man jàpp nañ ma yóbbu ma tribunal tëj ma dugal ma kaso atte ma daan ma sama turam ngi ci liste bi lu tax laajuñu sama casier judiciaire ministre bi jóg taxaw ne juróomi junni nit ñu ngi ci kaawu kaawu Karim waxul dëgg ay kàcc la wax xamul tax ma wax ay kàcc la wax ndax bu ñuy def conférence de presse defuñu conférence de presse pour juróomi junni nit kenn lañu fa tudd muy Karim kenn rek kon dama ne gouvernement boo xam ne ne bi nu muy doxalee daf ko teg ci jubati ci càcc ak ci ak fen loolu su ñëwee il faut réew mi taxawaat am na lu kilifa ga doon wax ne réew mi dañ ko war a sangat réew dañ koy sangat ndax sangat ko du jibar du jibar sangat ko mooy ña toog ay kilifa yoo xam ne ay nitu diine lañu ñu sangat réew mi ndax sobe benn sobe laay wax moo xam ñu ñépp dañ ci toog tey mu di ribaa ñun ñëpp dañu toog ci riba xam nga ñu toogee ci riba dañuy ñëw fekk nit bu am alalam ñu yóbbu ko tribunal ne alal ji nga moom mu ñàkk nga ñàkk ko nga le mu lew la moomu ko réew mi nangu na ko ñu dugal ko ci ñun ñu réew mi di doxee loolu riba la. jàpp nga ne moom lañ def Karim. waaw ak ñu mu àndal damay daanele ci dara ci yoon nag laay wax li may wax lépp tey ci yoon rek laa koy teg yoon dafa ne. su dee da ngay inscrire nga ñëw inscription bu bees nañu nangu sax li Bernard wax ka Karim inscription bu bees la def. da ngay ñëw indi say këyit ne dama bëgg dama bëgg bindu. su dee jàpp nañu waroo bindu commission bi ci li may wax nii Babacar a ngi toog xam na ci dara commission bi dafay naan d'accord ma parce que sa këyit baaxul cas da nga lay woo nga ñëw ñu bind la jox la xaatim bi ne yow doo bokk ci ñu la bokk ci list bi. loolu su amee di nga am ñetti fan pour nga gis tribunal wala nga gis président commission bi mu réglé ko waaye Karim bu mu demee di inscrire lañ ko laaj lépp daf ko indi ñu xool xayma vérifier lépp jaar yoon ñu defal ko récépissé su la joxalee récépissé rek mooy mbir mi jeex na. très bien ma daaneel. su la joxee récépissé ba pare commission bi su pare carnet yi daf koy jël. yónnee ko ministre de l' intérieur su ko ko yónnee lii la yoon wax ministre de l' lii rek la ko wax dañuy xool dañuy def croisement entre carnet yi ak fichier yi pour bañ benn nit nekk plusieurs fois ci liste bi su boobaa mën na ci dindi benn nekku ci kon suñu yeewoo suba teel ne Karim nekkul ci liste bi affaire u affaire u jalgati la affaire u caay-caay la affaire u jubadi la Bernard Casimir directeur territorial euh, directeur euh, euh, fichier ministre bi ñàkk a fekkee ñëpp. ci mbirum caay-caay ak jubadi la ñu def loolu nag duñ ko nangu. Zator ban tontu ngay am yow sëntu woon nga lii parce que ñoom argument yu ñu joxe. alors maa ngi lay gërëm gërëmati sax laay wax Papa <laughs> ci dalal bi nga ñu dalal fii di nuyu vraiment sama mag ñi ma bokkal jotaay bi may am mbégte toujours di toog ak ñoom di nuyu téléspectateurs yi aussi. su ma dégloo sama mag euh, monsieur le ministre euh, maître Amadou Sall damay am njaaxle. ndax euh, boo nekkee ministre de la justice toll ci benn niveau bi ci état war nga mën a xam nu état di doxee boo indee ponk yu bëri ne ay ribaal réew mi toog daf may jaaxal ndax euh, li nga xam ne mooñ fi tax a toog muy inscription Karim Wade di sénégalais comme sénégalais yëpp du sénégalais plus du sénégalais au carré li am lenn rekk la parce que wax ci tamit bu ñu jéem a nëxal xelu askanu Sénégal li xew bi dafa doon guléet ndax réforme bi dafa doon réforme mixte boo xam ne da ngay am carte d'identité amaale carte électeur soo ñëwee ca commission bi di bindu li lay laaj mooy kayit yi nga war a indi soit nga photocopier sa carte d'identité wala nga indaale li ñu naan sa extrait de naissance wala yenn pièces yi nga xam ne moom lañ cay laaj bu ñu la ko laajee dañuy xool pièces yooyu ndax valable na mais commission bi recevoir inscription bi amul compétence ne la yow mii doo fi bindu loolu amul amul benn texte boo mën a génne bu wane ne commission bi mën na rejeter inscription citoyen bu ñëw taxaw ne ko bind ma benn ñaareel bi soo bindoo li nga ne récépissé dama bëgg ñu dellu ci photo bi Karim Wade photo dugal ko ci Facebook muy loolu ñu naan récépissé lu ñu ci coché demande d'établissement de carte d'identité et de carte d'électeur kon commission bi li mu mën a def mooy Karim ñëw na ne dama bëgg carte d'identité sénégalais la daf koy am waaye dama bëgg carte électeur commission bi amul sañ-sañu ne ko doo ko fi amee dañu koy delloo ca direction générale des élections bi nga xam ne moo compétente en la matière pour mën a xool ban sénégalais moo war a wote ak ban sénégalais moo warta wote leneen li ci loolu mooy yow nitu droit nga nitu yoon xam nga code pénal code de procédure pénale ak ñoom seen li ñuy wax nii mbiru élection la élection code minier réglé wu ko code pétrolier réglé wu ko li koy réglé c'est le code électoral à la matière qui dit quelque chose de très clair ñii diw diw diw diw bu leen yoon dabee sañu ñoo bokk ci élection waaye képp ku nga xamante ne yoon dalaa teg daan bu ëpp juróomi at yow maître avocat nga xam nga ne yoon teggil na la say droit civil et politique yu war a mën a tax nga bokk ci élection allah kulli alin Karim ma demoon di inscrire ak yéen ñi nga ko digal xamoon ngeen xel ne Karim amatul droit civil et politique lan moo waral. ba koy li mais loolu sa ministre da ko bañoon ah Sidiki Kaba non li ñu non man man man du dugg ci déclaration Sidiki Kaba parce que ça l'engage mais man li ma bëgg wax mooy li ma xam. parce que hmm. bëgguma dugg ci euh, juridisme boo xam ne maîtriser wu ma ko. CREI yi lan moo tax ba mu àttee Karim mënu ko tegal ne ko dañ lay dindil say droits civils et politiques ndax fa mu sukkandiku amul fu mu sukkandiku pour ma pour wax loolu. avocat nga yaa ma gën a xam loolu xëñ na Moussa bu jëlee parole dina ñu indil lan moo tax mais juge Henri Grégoire toppul procureur bi ko ne dañu bëgg nga dindil Karim ses droits civils et politiques parce que amul su li nga xam ne mën na ci sukkandiku waaye nag mbirum élection la ñuy wax mbirum élection li koy régler c'est le code électoral te code électoral bi nga xam ne moom la ñu yëkkati du code électoral u président Macky Sall code électoral la bu kon yéen ko gën a xam nit ñi li am ba des mooy fexe jéem a nëxal xelu sénégalais yi. ndax mhm. ca nëxal gi xam nga fu mu tàmbale ca njalbeen bi ngeen jëlee réunion comité directeur transformé ko congrès pour ne nit ñi ah ñun Karim mooy suñu candidat te mu wóor leen ne Karim Wade mënut a nekk candidat. kalaa nekk imam ci jàkka da ngay nekk jullit ba noppi. ay musu leen a gis jàkka boo xam ne. ki koy jiite du jullit. Ah, waaw dama ne kala nekk <laughs> imam jàkkaala la woon. <laughs> Babacar jàkk ah, avant d'être éligible dama dama la indil métaphore. avant d'être ah, éligible il faut être électeur. kala moo tax ma ne la kala nekk imam. Babacar Babacar euh, Babacar euh, euh, est-ce que foo nga ne fi sukkandiku ñoom ci article bu ñu sukkandiku. dafa dàq inscription Karim en tant que membre de la société civile. Euh, maa ngi lay gërëm Pape di gërëm également suma naataango suma xarit bi nga xam ne ñoom laa fekk ci plateau bi ak Sénégalais yi ñuy yëpp di le remercier également ci invitation bi ñu invité. Euh, mbir mi dafa nekk loo xam ne nii euh, en tant que société civile maanaam ñu jël ci. position boo xam ne position bu tranché la dafay xaw a doy waar. parce que ñun société civile comme ni ma koy faral di wax bokkuñu ci benn camp dañuy tëddee tëddu euh, ndey ji seex mais dañuy seet li nga xam ne nii yoon nangu na ko seet li war a mën a am ak li nga xam ne mënul warul mën a am xam nga ci dàq bi nga xam ne dàq nañ ko inscription Karim Euh, fi nga xam ne foo lañ ko teg mooy maanaam article L31 du code électoral ak li mu ci wax yépp bu fekkee ne maanaam dañ la condamné pour des délits daal di lim délits yi mhm. et cetera et cetera du ci dellu si mais foofu rek dañ fa waroon taxaw parce que li nga xam ne moom moo jiitu article L31 bi mooy dañu def modification article L57 avant ñuy wax arti affaire article L 31 li tax. code électoral bi. waaw parce que article L 31 naa même bu fekkoon ne maanaam bu ñu ko appliqué Karim Karim bu mën a nekk euh, candidat am na beneen disposition boo demee ci code électoral bi fi ñuy wax euh, maanaam article LO 115 ak LO 116 boo xam ne dafa permettre Karim pour mu mën a nekk candidat ak article 57 bi nga xam ne dafa wax ne sénégalais peut fair acte de candidature mais donc bala ñuy ñëw ci article 31 dañu jëkk changer article L57 dugal ci la notion d'électeur ne léegi tout candidat électeur loolu modification boobu kañ la modification boobu je crois que bu yàggul la ci euh, euh, projet de loi bi ñu jàllale assemblée yaakaar naa ne bi ñu jëkkoon jàllale mois de mars te retiré ko jàllale waat ko bu yàggul mois de juin dañ ci dugal benn modification pour wane ne léegi pour nga mën a nekk candidat il faut que nga maanaam loolu bu ko dugalul woon même bu fekkee ne Karim rëcc na ci article L 31 kenn du ko mën a tere nekk candidat mais dañuy dugal galgal boobu article LO 115 ak LO 116 également ñu wax ci ne maintenant nit ki pour mu nekk candidat il faut que ci dossier ci pièces yi nga xam ne donc day composé dafay ànd ci dossier bi mu boole ci carte delecteur am. boole ci waale maanaam numéro carte d'électeur bi ak ak photocopie carte d'électeur loolu kon dafa woon ne mbir mi. boo ko seetee ba seet dafa mel ni maanaam dafa am lu ko taxoon jóg te damay wax ne loi bu ñu koy voté elle doit avoir une portée générale et impersonnelle loolu déjà dafa jiitu àtte parce que article 31 bi man pour man bëgguma ci parce que ku nekk tey mën nga ko interpréter parce que boo seetee article 31 bi est-ce que dëppoo na ak li ñuy wax vraiment tey droit de l'homme parce que boo demee tey ci article 25 pacte international relatif aux droits civils et politiques dafa wax ne tey amul benn discrimination boo xam ne nu mu tëti donc dañ ko war a teg nit ki euh, ci euh, pour euh, tere ko maanaam mu am ay droits civils mu exercer ay droits civils et politiques te Sénégal dafa ratifier pacte international relatif aux droits civils et politiques mm-hmm. donc lu man article L31 bi naam mu ngi ci code électoral bi mais boo seetee ba seet Karim bi ñu koy condamné démb maa ngi xool Euh, ordonnance jugement bi nga xam ne moo ko condamné. Mhm. il est écrit je crois noir sur blanc que effectivement il ne perd pas ses droits civils et politiques. parce que yaakaar naa mën naa la ko liiral parce que gës def naa ci gëstu pour xool ko demandé woon. pour mën naa la ko liiral mi ngi nii décision baa ngi nii. parce que bëgg naa dama ko demoon xool xool ne fan lañ sukkandiku mais du ci. du euh, ci euh, fi nga xam ne moo di décision dañu considérer qu'en vertu de l'article 35 du dit code les tribunaux ne se prononcent considérant que ministre a requis l'interdiction pour les condamnés de l'exercice des droits civiques, civils et de famille, mentionné dans l'article 34 du Code pénal. Euh, considérant de l'article 35 du Code, les tribunaux ne prononceront cette interdiction que lorsqu'elle aura été autorisée une disposition particulière de la loi, considérant qu'en l'espèce, les prévenus ont été déclarés coupables d'enrichissement illicite et considérant que l'article 163 bis du code pénal qui prévoit et réprime le délit précité n'autorise ni n'ordonne l'interdiction mentionnée dans l'article 34 précité, qu'il y a lieu dans ces conditions de ne pas prononcer la dite interdiction. mais xam nga loolu ba ñu jógee ci àtte boobu. ñëpp dégg nañu ministre de la justice Sidiki Sidiki Kaba wax ne effectivement Karim ne perdait pas ses droits civils et politiques. kon nag tey bu fekkee ne dañu bëgg a ñëw ñu ku ci article L31 boobu daan ne léegi Karim warul mën a bokk ci liste yi kooku vraiment dina indi problème. alors alors man. Euh, li ma bëggoon wax foofu rek Pape Alé. Mhm. ne que tey ñun en tant que société civile lii suñu taxawaay du Karim war na bokk warul bokk li ñu soxal mooy tey réew mi. naka la ñu war def tey pour créer les conditions yoo xam ne dinañu mën a dem. dinañ ci élection conditions yooyu jàmm ak salaam. Babacar loolu seen loolu pàcc bu am solo la dinañ ci ñëw est-ce que Moussa alors euh, yéen seen candidat moom euh, il est en sursis loolu la ki wax <laughs> Bernard Casimir <laughs> Cissé. déet ma sax si moom. Hmm. mais xam nga mag yi jërëm d'abord ñëpp. Hmm. Babacar ak eh, yow ak sénégalais yi ñuy seetaan euh, wax ji defe naa frankulaayu na ñuy waxee waxaat mooy am na moo bu ñu bàyyi bu ñu lâché léegi mooy galgal cest à boo seetee dëkk bi contentieux politique yi fi am yépp contentieux wu ndax diw na den candidat wala doon candidat la daa feewu xaalis daa feewu alal réew mi daa feewu koppar réew du dara tout les contentieux boo si mën di jëlee fond bi nekk ci suuf mooy naka la ñuy def ba diw di nekk candidat amul beneen nag et nañ ci dellusiwaat tout à l'heure ci kanam xam nga boo suivre processus bii lii am ci kaayu Karim Wade da ngay seetlu ne lu ñu topp la depuis le départ pour sexe Karim Wade bañ a doon candidat man ak Karim Wade xamante wuñu xamuma Karim Wade on n'a aucune forme d'affinité particulière waaye démocratie ak candidature du affaire wu Karim Wade affaire wu askan wi la askan wi moo am sañ-sañu suba Amadou Sall ne ko damaa bëgg a nekk candidat indil ko programme am Babacar Fall ñëw indi damaa indi loolu mooy euh, démocratie il faut mu am offre plurielle moo tax boo commencé di lënk kenn di tënk kenn yaa ngi yàq démocratie soo seetloo donc cri yi la ñu commencé dem si kanam juge bañ koy àtte ne juge bi damaa bëgg comme ki daa jël àll réew mi fexee mu bañ a doon candidat juge bi bañ. mooy décision bi ngeen jël tout à l'heure ñu dox ba ci kanam ñu seetlu ne ci biir code électoral bi Karim Wade mun na nekk ba tey candidat ñu dem modifier code électoral bi yokk ci benn moo électeur comme Karim génne woon nañ ko réew mi ba inscrire nekkul ci liste électorale yi ñu yokk ci ne léegi balaa ngaa mën a nekk candidat da ngay nekk électeur Karim Wade moom moom donc benn moo boobu ñu modifier ci code électoral bi Karim Wade la tudd moo ko moom. ñu xëy suba teel kañ waat di jóg ji jógee réew mu ñu ko yóbbu woon dem ci beneen yow inscrire lu dëgg. def photo fa mu doon inscrire def ci biir réseaux sociaux yi Facebook ñëpp gisandoo ko ñu dellu si waat bàyyi ko ba mu ñëw tey ñu indi disposition bu bees boo xamante ne lu mën nit mën di wax li société civile wax dëgg la man au départ je pensais Karim Wade jekku nañ ko waaye ba ma liiraatee code bi lire décision juge bi mais dama ne non y un dëgg. waaye boo demee ba problème bi toll foofu mais administration bi et ça il faudra qu'on en parle un jour cest à chaque fois que ñu am benn galgal bu ñu def rek benn magistrat la wala benn benn fonctionnaire tout le temps y en a pas c'est-à-dire loolu politique kese mënu ko def il faut nga am si koo laxasaayu pour ñëw def loolu xëy suba teel xëy ko mu inscrire du candidature am na ne ndax candidat la wala du candidat loolu yombul ñu xëy suba jaay doole yow yaay demal sa bopp si juge bi donc dañ lay dindi tey si liste si liste électorale loolu moo ñaaw c'est-à-dire kii dafay wax ne kàccoor la yëfu banditisme d'État la c'est-à-dire c'est ça la vérité c'est-à-dire on est dans une période de banditisme d'État mënoo ko tuddee neneen parce que ay nit mënuñoo jóg di kompolo di galgal juste parce que damaa bëgg a dem si ab élection deuxième mandat laa bëgg te képp ku ma mën a xañ sama deuxième mandat dinaa fexe ba doo nekk candidat si bi si ab élection loolu mooy li ñaaw Sénégal nag yemul si élection yii di ñëw mhm. après élection yii di ñëw dafa am beneen Sénégal bu fiy taxawaat ay nit mun nañoo toog di galgalante di dóorante dàll di def lu kenn xamul si affaire Karim Wade dem nañu ba def si loo xamante ne bu doon réew boo xamante ne opinion publique bi développé nañu gouvernement bi dafa naan ci réew mi. lan la. mais naka la nit di taxawee Karim ne damay ñibbi si Sénégal sénégalais bu nekk comme ñun nga déporté ko c'est-à-dire c'est la première chose c'est déporter un national citoyen comme yow ñu xëy ko génne ko ci biir réew mooy lu jiitu mu ne dafay ñibbisi. ñu jël taxaw ne ko mun ngaa ñibbise waaye boo ñibbisee da ngay fay suñu 138 milliards dëgg la wala du dëgg sama yoon nekkul ci loolu waaye ça veut dire quoi ça veut waa ji mën naa dem yóbbaale suñu 138 milliards bu dàkkaxee bañ a nekk candidat bu fi bëggee ñëw nekk candidat dañuy fay suñu 138 milliards wala ñu def ko si biir kaso bi <laughs> du alal réew mi xanaa alors euh, maître maître maître euh, dégg nga li li ñu wax kon ci condamnation bi bëgg naa nga dellu si ci que du moom moo moo gàllankoor ak timit je crois que allez-y dafa am li nga wax léegi li nga xamante ne moom la Ousmane Gueye wax Ousmane Gueye dafa ne interdire tamit droit civil civil nee na su article 163 man nag li may wax dama koy wax tey moom lépp lu ma la wax naa wax ma ko ci euh, wax nga ne fii la door suma xarit suma te nekkoon naa ko gis laa yor gis nekk avocat moo tax ma am sañ-sañ wax may wax moo sañ ma moo tax ma sañ wax ñu ñagas parce que li wax nga xam ne nii tey kuy magistrat bu nekk Sénégal képp kuy magistrat yi ki ci gën a mag dama koy xam man stagiaire laa woon stagiaire la woon sauf ñu yokkal kon ñu ngi fanweeri at ak juróom ak lu ci topp ma nekk avocat métier boo ne dafa am lu tribunal wax luy article 34 wax article 34 dafa wax ne. kuréel bii atte suy atte ci yenn situation yi mën na la dindi say droit lépp wala as droit exercice des droits civiques civils ak famille parce que nit mënuloo ñëw rek nekk amatoo droit civil parce que moo tax il foog ñu condamné la soo amatoo droit civil mooy mënatoo liggéey parce que soo liggéey donc civil la da ngay bind contrat mënatoo bind contrat pour liggéey mënut doo am am sañ-sañ jël xaalis sa compte bancaire mënut doo bind loyer loolu mooy droit civil droit de famille mooy sa doom bi nga jur mënut doo nekk nekk nekk kilifa parce que matatoo ko droit civil droit de famille mooy yow mënatoo takk jabar parce que takk jabar jabar contral dangay dem ngeen déggoo mooy sa sa soxna say doom mënatuloo dara ci ñoom loolu mooy droit voté droit politique mooy nga droit voté nekk ci est nekk ci liste loolu su la koy teree dañ la koy tere at ñaari at at te mën nañu wax ne yow mënoo waaye mën nga liggéey mën nañu wax ne sooy liggéey mën nga bañ a liggéey waaye mën nga am jabar waaye doo voté doo liggéey doo am loolu pour que nit koo ko teg nga gàll ko ci ndox il faut nga wax ñaata ngir bi ñaata or sa nga tribunal wax dama koy wax ci français après ñu xool naka la ngeen traduire les tribunaux jugeant correctionnellement en tout ou partie l'exercice des droits civils et de famille suivant le droit de vote article 34 ak le droit de i vote mooy nga nekk candidat tribunal nee na mënoo ko tere nit te ko boo tax ma ne affaire caay-caay la gars yi di def parce que ma wàllum Bernard Casimir dama koy tudd dama tudd Aly Ngouille Ndiaye dama ko wax barki démb dañu dëkk ci dëkk bi man maa ngi tudd Alaaji Amadou Sall Sall fi laa juddoo fi laa màggee fi képp ku bokk ci réew mi nag am tur ni man am baay man am ndey ni man du toog ma di la nga toog jël jël jël parce que da nga doon fekk ma fa ma toog nga tey loolu ku ko def ab caay-caay yoon moo ne mënuloo tere benn nit ne voté te dunduloo ko amul fenn fu ñu ko bind fan la Bernard Casimir ak Aliou Ndiaye teg ne Karim ñu voté fan lañ ko teg parce que code bi wax na ko loolu aussi gis nga droit du caageen da ngay lire rek dañu dem université jàng ko su doon loolu la kon kon kon ñu dem université kon suñu papa yi dañoo perte su doon ñun xam moom la ñëpp xam su kon yaa ko fi wax dégg gis nga kër goo dem jàkk joo dem kii la imaam yi mooy ñu jàng mënoo ñëw taxaw ne mu jàng ma sama Faatiha ak Falaq ak Naas laa yem ni barab ñu ñuy wàcce alxuraan nekk fi jàng risaala jàng ko ne yaa leen di jiite ko jàng la ñu jàng la ñuy wax dama ne gis nga kat suñu toogee xam ne dañuy xamul dañuy wax kon ñu xam dañuy noppi tollu ñu nag fi nga xam ne xam dañuy noppi dañuy wax amul benn jugement bu ko def donc Bernard Cazeneuve lu mu wax waxul dëgg ay kàcc la te su ko ci ministre bi àndee ministre bi nekkul ci dëgg su ko ci premier ministre àndee nekkul ci dëgg su ko ci président a nekkul ci dëgg moo tax ma ne wax ci day ñagas parce que wax ji dafa lalu ci dëgg. wax ji mën na bañ a ñagas parce que waxtaan la rek. Ah. waxtaan la xel ak sottante xel ak xalaat la parce que kenn amul monopole xam-xam xam-xam moom bu ko kenn rek naanoon kon je crois que àdduna du am solo ku ci nekk dafa am loo ciy for rek. parce que loolu mooy justement l' essence même et le sens de la vie ni nga euh, d' abord Pape Alé débat bi daa xaw a déséquilibré ndax daanaka ñetti opposition lañ man dong. voilà parce que. waa ah, oui may ma waaw xaaral ma la l'histoire du pays. on a fait pour la publication de liste provisoire une conférence. on a cité deux cas. Hmm. li may wax je parle sous le contrôle des membres de la société civile. parce que nag li kii wax ne ma ngi def dafa guma fanweer wante ci métier bi maa ngi ci yàgg fekkee naa ay élection mm-hmm. deux cas yooyu laa indi mm-hmm. parce que pour la première fois spécifiquement ñu def conférence de presse pour la publication des listes provisoires c'était ces deux cas mais tey ji mënoo ñëw boo ñëwoon toog fi tudd kaawu Khalifa Sall faaw mu am kenn ko la tontu. Mm-hmm. boo tuddee kaawu Karim faw moom kenn ko la tontu. moo taxit loolu yéen ba ngeen doon wut tamit noonu ngeen meloon devant devant le parti démocratique sénégalais non nangul la ko Amadou Sall mii daf ma doon woo dama le débat était déséquilibré dama bëgg rek sa moome dama ba ñuy def Ismaïla Madior euh, bëgg rek nga nga dombatoo ñu tuuti rek ci ci ci ci temps bi danañu permettre aussi ci élément yi ci élément yi nga xam ne la a wax ma duñ ko wax alors euh, sama mag grand Babacar dafa wax sànq réforme article 57 bi nga xam ne euh, waaw bi nga xam ne am na ci Moussa nekkoon na député mais amul benn gouvernement sañ na def ay réforme saa yu ko soobee amul réforme amul benn article bu ñu tuddu turu Karim Wade réforme bi ce n'est pas personnel ça c'est archi faux opposition bi ngay wax mais yëfu naafeq la ñuy def parce que waxuñu dëgg nit ñi. non non parce que yaa njëkk a grand. amul quand tu parles de amul benn problème amul problème. bu fekkente ne da ngeen nekk ay mag jiituñu ci li ñuy def parce que loolu ku nekk mën na ko mais loolu taxuñu fi toog li ñu fi tax a toog mooy ku nekk wax sa xel ak sa xalaat ci cadre respect ak considération nous ne sommes pas xalaatuñ ko nekkuñ ko parce que koo ne bandi rek mën na la waxal leneen. waxuñu a naka a gérer leen et puis même bu Karim sax nekkoon ci liste bi mais xanaa dina egg fu muy déposer casier judiciaire am xanaa te Karim dañ ko àtte ko xanaa du indi casier judiciaire bu vierge man li Pape Alé lire déclaration bi mu lire terewul benn yoon ñu def référence au code électoral parce que liy organiser tey jii suñu émission bi c'est pas le code pénal ni le code de procédure pénale c'est des règles yu nga xam ne c'est des règles peut-être que Pape Alé aura en matière d'élection c'est le code électoral fii amul kon kuñ fi galgal ku fi daanu yaa galgal sa bopp ku fi pëtëx yaa teg sa tànk ci kàmb parce que yow mi nga xam ne déglu ma rek nekkoon nga ministre kenn woowu la parce que dangaa set nee nga daxoon nañ la jëlaat la parce que da ngaa set woowuñ la tëj nañ ma kaso waaw may ma rek waaw bàyyi leen moom wax na waaw ma rek ma yegali àggaleel kenn woowu la kenn tëju la yaa ngi dox sa soxla di wax lu la neex bés bu nekk nga saaga président Macky président Macky pour que. dama ne Macky Sall pour man Macky ñun du suñu nawle mooy suñu président. xam nga lu tax sax xam nga lu tax ma lay wax c'est pour que ma mën a continuer. waaw ba tey déet damay bañ rek nga wax dama lay suivre parce que c'est trop grave de me dire que damay saaga président de la République du ma saaga président de la République je le respecte beaucoup ndagam génnee nga wax ji excuse nga nangu naa loolu waaye man du ma ko saaga <laughs> waaye nag dinañu wax ci politique nag ma wax ko li ma xalaat ci politique saaga man du ma saaga man sama ndek sama bàyyi dañ ma yar yar ñu ma noppil nag déglu ma ah, ah, da ngay noppi déglu ma rek ah, da nga saaga mag ma magum jëm nga da nga saaga yaa ma ne sama mag nga après ngay da nga saaga naa la ne da nga génn wax da nga tuub nga ko kay jeex yàlla su ma paree nga jël sa temps de parole parce que man soo duma la duma la duma la saaga Macky alors donc loolu loolu bu amee je pense que Sénégal quand même réewum démocratie la fii ku nekk da ngay wax lu la neex xëy jël rajo yi jël télé yi bind lu la neex kenn teewu fi kenn grand s'il vous plaît yéen tamit respectez nous un peu waaw mais non da may respecter parce que man bi bi ngay wax wax nga loo xam ne d'accord ma ci te dama la déglu donc il faut me respecter ça c'est un minimum quand même lu neex waaye wax ci Sénégal te y a pas de fii kan Macky Sall pourtant muy galgal lu muy ragalee Karim Karim docteur Malick Diop bu point moo ko dóor foofu jarul ragal pourtant ragal lan fan la Karim toj comme ni xale yi di waxee fan ñun sax li ñu doon gënal mooy Karim sam samp na premier tour ñu fete ko premier tour président Macky Sall yooyu yóbbu ko ardo ak keneen képp ku fi taxaw nag fii très bien parce que ñun bilan la ñu am may ma Pape s'il te ah, plaît. Ah, mais ma yeggali rek xam nga nag ci benn point. parce que ci point ci point créé bi. la wax ñu bàyyi la nga wax ba pare nga xaababal dañuy nekk toujours naan Karim dañ ko génne réew mi dañ ko extradé kan moo fi gis Karim mu ñu takk wala mu ñu jëng man. gisoo ko amul photo bu ko wane. waaw Amadou may ko mu daanal kenn su fi gis photo bu ñu jëng Karim Wade génn ko réew mi loolu amul. très bien ñi ngay wax waxuñu dëgg Babacar c'est pas vrai est-ce que dans ces contextes. et ça il faut contexte boobu ñu jëm nii ci élection président est-ce que lii crispation bi baax na ci. yaa ngi ko doon bëgg a junj sànq. waaw euh, ko doon bëgg a junj mais dafa am loo xam ne peut-être dinaa ko wax pour tontu un peu euh, sama xarit Zator xam nga bu ñuy dem ci élection réforme yi ñuy def yëpp dafa war a nekk lu consensuel loo xam ne les principaux acteurs dañuy toog waxtaan ci d'accord ci. xam nga projet de loi bi nga xam ne yóbbu nañ ko assemblée changer ay dispositions code électoral article li moom l article LO 115 116 loolu fan lañ ko waxtaane au niveau de la classe politique. nekkoo woon ci nekkoo foon. non nekkoo ko foon waxtaanee wuñ ko c'est-à-dire que li daan am mooy bu ñu juban ci élection dañuy convoquer commission technique de revue du code électoral administration ñëw def ay propositions. Hmm. nit ñi waxtaan ci ba juboo ci mu nekk ay réformes yoo xam ne day nekk lu consensuel mais dañu xëy bis gis ñu génne projet de loi. cest à def modification ci article L57 dugal la notion de candidat électeur. non non y avait des concertations yéen yéen a ci demul. mais y avait des concertations. waaw mais amoon na mais bul ne amul nag parce que amoon na. ah voilà que amoon na. Moussa yow calmal rek. daan on a une heure. amoon na cadre de concertation boo xam ne tegoon nañ ko mais waxtaan ñu woon ci lu modification yooyu. modification yi yéen na ko góor gi moo ko génn article L57. bi ñu dugalee loolu ci la ñuy yokk maintenant ci les pièces yi nga xam ne moom la candidat bi di euh, déposé photocopie carte électeur ak nu mu tëdd le numéro de la carte d'électeur pour man loolu laa ci déploré tant qu'une réforme pour man waxtaanee nañ ko ba nit ñi jubóo ci vraiment je n'ai pas de problème bon. c'est logique ah c'est logique li nga xam ne moom la Pape Alé wax mooy ne tey euh, ñun li nga xam ne tey am nañ ci njàqare mooy euh, fii nga xam ne maanaam nii mbir mi tëddee. ak ni nga xam ne noonu lay évoluer maanaam bu ñu moytul dina jur loo xam ne nii du neex kenn ci réew mi muy acteur politique yi ñun ñi nga xam ne aussi société civile la du ñu neex parce que tey bu fekkee ne euh, juboo amul ci li ñuy wax les règles du jeu loolu fa muy mën a yóbbu réew mooy ci ay jàmmaarloo parce que gis nañ ne léegi am na koo xam ne jàpp na ne moom am na sañ-sañu tey nekk candidat ñu ne ko doo nekk candidat muy Karim kaaw Khalifa Sall mi ngi fi procédure la boo xam ne actuellement c'est pendant devant la justice fu muy mujjee dina nekk candidat du nekk candidat kenn xamul mais li ma bëgg a wax mooy bépp réforme boo xam ne war nañ ko def war na ni acteurs yi war nañu fexe ba toog waxtaan ci ba indi ci jubóo boo xam ne vraiment dina tax nit ñi bu ñuy dem ci élection ñu dem ci élection ci jàmm ak salaam waaye bu fekkee ne réeroo dafa am nit ñi jubóowuñ ci dara te loolu actuellement moom moo dessiné wu mooy dañu nekk ci situation boo xam ne impasse politique la ñu. ci la ñu nekk processus électoral bi daanaka mi ñi amul ci dara loo xam ne jubóo na ci ñun loolu moo ñu jaaxal en tant que société civile. loolu moo tax ñun tey ñu am posture boo xam ne posture de neutralité la ñu ngi fexe di waxtaan ak acteur bu nekk pour que nit ñi seet nu ñuy toogee ba waxtaan ba am ay consensus sur les règles du jeu ñu mën a dem ci ay élection yoo xam ne ci jàmm ak salaam lay doon nga xam ne bu ëllëgee bu ay résultat génnee. kenn du ko mën a werante kenn ñu xëy naa ni suñu kafe loolu ñun vraiment moom mooy suñu mooy suñu taxawaay en tant que société euh, dellu si kanam ba mu mayee yi nga xam ne société civile taxaw na ko depuis 99 2000 fi ñu jaar yëpp position de médiation position de neutralité yi ñu am pour waxtaan ak acteurs yi ba tey ñu mën a toll fii ñu am une démocratie apaisée mais loolu dafa mel ni tey ñu ngi bëgg a yàq c'est important Moussa yéen seen candidat c'est en sursis gars yi ñu ne na ngeen di léewtoo pour fexe mu doon candidat candidat moom xam nga heureusement que Macky Sall mu ngi fi day say avocat am la e la la bokk nga sax dafa wax ne la bu ñu toog di ko lijjël yëpp ci wàllu réew mi Macky Sall bu mu toogee ba tey mooy nan lay def ba ñu jël mandat loolu moo ko affaiblir loolu moom moo tax pendant cinq ans toog na amul bilan moo tax bu mu liggéey na wàññi mandat bu mu wàññi mandat parce que simplement pendant cinq ans ñu ngi nekk di xool nan lay lijjëndee kaw kañ war nan lay lijjëndee bi nan lay lijjëndee bi ba élection yi def deux ans mu dem léegi xaalis ku nekk na commencé wu jaay chantier c'est ça la dëkk nit boo bëggee nekk candidat nga a da ngay indi yi wala juróomi at yi ma liggéey naa fi lii askan wi nag am sañ-sañ ne la yow ñii kat wóolu na nga dañ lay doon wala wóoluwul la dañuy tànn keneen ko mu jiite hmm. loolu aussi mooy démocratie waaye bu ma ñëw si démocratie nga xëy kan kaay wàllu nii kat peesewul dara amul dara ñu ko satoo wax moo ko wax du ko za Zator yaa da ngay fi mu nekk nii xam nga ban stratégie gi. waaw suuf non non xam nga ban comprendre. non non non yàpp non yàpp man ACLA. bu déggee ñoom yéen mais. suuf taa bi di gën a dagg. non y' a pas de souci Zator Zator monsieur Mbaye monsieur Mbaye. voilà ni ma ko waxee mooy kii tekkiwul daal ku fa ñëw ñu dóor la. kon wóolu nga sa bopp nag ba ne ku nekk ku ñëw ñu dóor la jarul di anticiper si candidature yu jàmm xam nga tegal naa léegi processus bu ñu teg yépp pour fexe Karim Wade bañ a doon candidat si élection yi ñu jëm si lu mel noonu moo dal Khalifa Sall dama ne bu fekkante woon affaire Khalifa Sall affaire caisse d'avance la ñaata la du 1 milliard 8 Karim nee nañ ko demal ak 138 milliards 1 milliard 8 pendant 5 ans le président Macky moo ne autoroute à péage bi li diggante bu mu ko annoncé ak léegi Eiffage lu mu gagné si si autoroute à péage bi sur le surplus ëpp na un milliard huit donc ce n'est pas une affaire d'argent nekkuñu affaire d'argent xaalis nekkuñu si affaire ay la bu fi nekk mënu la xañ nga nekk candidat nga xëy suba teel nga ne kii xaar fu ma koy jaar Khalifa Sall fa lañ ko jaar ñëw nañu yónnee contrôle bu nekk maire gisuñu dara ñu xëy suba teel dem soulever question caisse d'avance boo xamante ne Macky Sall xam na caisse lu dëgg donc boo tegalee yooyu yëpp nga ñëw teg tey ñu ñëw wëndeelu wëndeelu fu ne ñu jaar fa ba ñu dem tey ñu ne CEDEAO CEDEAO xëy suba teel ne la mais waa ji ñeen doon jàpp di ko atte boobu ba léegi di tegale atte yi di ko dóor lu ne ñu wax ko Sénégal ngeen bañ ne du ngeen ko suivre juge communautaire bi nee na point yi ngeen waxoon yëpp jox nañ ko dëkk état bi sax yaa koy fay dam ndàmpaay c'est pas vrai waxuñu lool de da ngeen di naxasaxal bopp Sénégalais yi c'est pas ça qui a été juge bi dafa xëy mu ne benn Khalifa Sall amoon na droit à un avocat. 35 depuis le départ kenn amul kenn joxu deuxièmement procès équitable procès boo xam ne dafa yemale ñëpp kenn jengul ci kenn mu ne procès bi ngeen ko teg procès bi dafa jeng ñetteel bi ñu ne autorité policière sax ak judiciaire yi nekk Sénégal dañuy engagé seen responsabilité. mais bu ñu confirmé 5 ans yi dañ koy dóor mu daanu de. bokk de yëgaguñu si 5 ans yi xam nga fi mu toll nii ñaan sax que juge. boo xamante ne décision bi day appliqué wu fii Sénégal moo ne kii procès bi ngeen ko tegoon ak ni ngeen ko jaaree ba condamné ko procès bi ngeen ko jaar bi ngeen ko teg jaarul yoon dama joxe exemple dama ni bu fekkante woon tey dañoo fubal benn match Sénégal ak Mauritanie Sénégal gagné Mauritanie 2-0 ñu dem FIFA FIFA ne match bi ngeen ko joué baaxul heure bi ngeen ko joué baaxul réglement football yi ñu ko waxoon a defee ba amul. donc match bi baaxul léegi da ngay continuer nga ne kon deux heures yi day des ba léegi mooy kaw Khalifa Sall. atta ngeen ko juge bi ñëw ne la juridiquement. juge bi ba pare deuxième chose. boo ne wax naa ko fii on a abusé de l' assemblée. il faut ñu fàttali loolu Khalifa Sall dañoo koy suba dañuy lever immunité parlementaire ñu ne nañu ko wax entendre ñu xëy ñu ne waaw Khalifa dañu wax entendre mais bu ñu waxee entendre dama la ñu wuyu si leen si biir commission ñu ne ko déedéet waxoon na wuyu si parce que dañ gàtt. mu ne déet dégg ko ñu fal ma dama am immunité parlementaire ñu ne ko déedéet amuloo immunité parlementaire immunité parlementaire du dëgg ñu teg si ay weer gouvernement bi ne woon aw moo immunité parlementaire ñoo dem ne ko léegi am nga immunité parlementaire dem saisir assemblée nationale pour ñu lever immunité parlementaire Khalifa Sall CEDEAO nee na kon diggante boobu ngeen ko fale ba jour bi ngeen di lever immunité parlementaire Khalifa Sall détention arbitraire ngeen ko def ça veut dire quoi ça veut que ba ko assemblée nationale di entendre dafa waroon a fekk mu libre loolu la juge bi wax. dañ ko waroon a libéré. mu dem librement déglu assemblée nationale assemblée nationale teg commission lever immunité parlementaire am wala ñu bañ a lever immunité immunité parlementaire mais voilà que nguur gi. dafa def complot ak assemblée nationale ñu séquestré benn nit. lever immunité parlementaire sans entendre ko. jël ko li euh, yóbbu ko si juge bi. et dinaa la wax sax beneen yoon maa ngi préparé alors euh, waaw loolu c'est un débat sa <laughs> sera intéressant alors Amadou juridiquement nan ngeen mën a combattre décision bi parce que xam nga comme li ngay wax rek sama gars yi mosu ñoo jàpp benn affaire bàyyi ko bu dem de. non non non euh, euh, Macky bakkanam la ci teg gis nga tey dama lay wax dara dama ko wax bërki démb. Mm-hmm. fan yii la passé man yi bu ñuy attee Khalifa Sall dama ko wax bind ko. ma ne ko dina ñu gis lu kenn mësul gis Sénégal tey Khalifa Sall ngi àtte nañ ko fii ak ñetti weer ñeenti weer dina ñëw d' appel gis nga appel bi renvoi li fa nekk ni dinañu xataraay ñu àtte ko pour confirmer fii ak deux mois trois mois su suprême dina confirmer man maa la wax lii. xam nga Barthélémy première dans l'histoire du Barthélémy dafa taxawoon wax ne ñemewuñu àtte Khalifa Sall appel te man àtte ngi ni maa ngi xaar ñu appel ma appel te waaw man miy wax a atte nañ ma mille 2015 ma def cassation parce que d'accord ma ba tey ba tey atte baatuñ ma Oumar Sarr levé nañu immunité parlementaire en procédure d'urgence en procédure d'urgence ñu entendre ko ba tey atte wuñ ko. dégg nga euh, waa waa le cantakun 2012 ba léegi ñoo ngi ca kaso kenn atteegu leen waaye kii dañ koy pamti pamti parce que Macky Sall ku takkoon fitam wax naa la takk fitam yóbbu ko gànnaar ndelax ko ngi ñëw nga ne attaqué ñii du ko def wane na ko wane na ko alors ñun li ngay wax li man dama bëgg dama bëgg parce que aussi euh, lu ne fànn kenn du ko jeex. lu ne fànn léegi juridiquement déedéet gis nga d'abord euh, gis nga euh, droit du rek nga mën a mën a lire c'est pas parce que on sait lire dem nga école rek que juriste nga mën nga ci lire gis nga galgal yi nekk ci code code électoral Karim Wade il est électeur qu'il soit électeur inscrit ou pas il est électeur dem leen suba ngeen changé waat loi bi yokk ko ci dem leen suba ngeen waat waat waat loi bi ngeen wote ko ci ngeen xam kan mooy électeur allez ngeen dem ci code électoral ñu xool kuy électeur Karim Wade est électeur inscrit ou pas. waaw pourquoi muy benn. parce que parce que loolu loi bi wax. loolu moom ñun juriste yi xam lu ñuy wax juriste yi xam nañu lu ñuy wax il est def leen lu leen neex. ah bon def leen lu leen neex il est électeur. ci ça que la loi gis nga gis nga gis nga gis nga le crime il n'est jamais parfait kookoy benn ñaar ñun dañu wax dañu wax ñaar bu ñu jógee ci élection yi passé parce que Macky Sall dañu ne ñun il va installer le chaos li may wax dama koy wax parce que ragaluñu man Macky Sall leen rek la ma mënal mënulu ma ñaar jàpp ma tëj ma kaso def na ko man ragalu ma kaso mu ne ma naa fi génn léegi kaay fekk ma ci mbedd mi xam nañu fu mu dëkk dañ ma jël dugal ma kaso ragalu ma jaaxalu ma jaral na ma ko parce que ci xare la du ma bëgguma parce que alxuraan kenn dootu ko wax ci léegi télévision na na na na na na juri na na politicien waaye xubbu alwatani bil imaan gis nga euh, bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk donc bëgg sa réew jaral na ma ko ma ni ñun dañu wax ne bu ñu fa génnee man maa def conférence de presse ak Ablaye du ñu dootuñu nangu file ak soppi wu ñu mbir mi que Macky Sall organiser élection muy benn dañ ciy opposé wu ma par la force dinañu ko def ba yebu ba yebu xam nga. xam nga gis nga nañu rey. ma ne nañu rey. ndegam jaral na ko ko jaral nañu ko. billahi suñu bakkan jaral nañu ko. parce que réew muy benn gis nga dañu ne. Mm-hmm. leer laa lay wax. te li may wax mën ko waxal Khalifa Sall Karim Wade su nekkul candidat élection du am Macky Sall du nekk candidat dina daf ñu koy jaral lu mu ko jaral rek lu ko jaral rek jaral nañu ko. nay leer xam nga xam nga Pape sama sama gars yi fii la leen koy jaral. sa studio bu neex bi sedd guy yi la leen koy jaral. Mm. képp nag. waaw ndax yow nekkoon nga xam nga nu état di doxe waaw xam ngeen ni xupp yi ak yow yëngalul président Macky Sall. est-ce que bàyyi woon tamit. non ma eh, li gars yi di wax tamit. est-ce que bàyyi woon ñëpp tamit. oui comme yéen yéen a ngi bàkkoo seen bilan. waaw mën koo lim tënku ko sénégalais yi gis nañ ko pour ñoom est-ce que bàyyi woon ñëpp tamit ñu doon candidat. ngeen gagné premier tour euh, jël bi du gën a rafet mais xam nga Pape Alé boo nee bàyyi woon ñëpp dafa mel dañoo tey ñenn. ah ñoom loolu lañ jàpp laa bëgg a wax. mais jàpp mais teewuñu gan ñun ñi demul ñëpp ñoo tey seen bopp bu ñu defoon li nga xam ne yow mii bu ñu defoon ni yow mii kon ñu nga élection bu ñu defoon ni yow mii yow yow Amadou Sall loola teree nekk candidat PDS yoon topp la yoon topp la toppaanu la. waaw ngeen jël koo xam ne. Macky Sall dañ ko topp li nga xam topp Macky Sall ma may ma yeggal yow tam. àggaleel nag xam nga yoon topp la yoon toppul Moussa toppul keneen ku deful yoon da la topp. ñun téyewuñu kenn waaye may ma rek téyewuñu kenn xam nga boo toogee fii si télé bi ne Karim est candidat inscrit ou xam nga loolu c'est une hérésie sinon jarul woon sa waaw defal ndànk rek jaru ko parce que ku bindawul ci liste allah kulli alin munoo nekk électeur c'est pas possible dama liir liir naa ko bu baax. déedéet parce que man mii au delà de liir damaa bokk ci ay commission di toog doon inscrire dama koo def ay at. donc damaa xam li may wax. dama ko jàng kon su waaw jàng waaw d'accord ku nekkal li nga jàng mais li ma bëgg. 88 laa jëkk nekk hmm. candidat euh, gis nga. Amadou réew mi Sénégal la. gis nga tey jii yéen a ngi opposition yéen a fi newoon. ñun yàgg-yàgg dañuy dem keneen ñëw. parce que àdduna moo demee noonu on ne s'agrippe à rien du tout ay galgal amu fii ay li ñu naan may ma ay levée immunité parlementaire yi yi doon wax mais sa s'est passé dans les règles de l'art leur la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée waxul ne député bi dañ koo war a auditionner entendre ko ci biir assemblée amul fenn bu amee nga wax ma ban article la nekkoon nga député amul député bi war nañ ko mën a auditionner waxuñu Sandaga la waxuñu galette la waxuñu feneen la amul ça n'existe pas non amul amul d'abord question may ma s'il ne député bi mun nañ ko entendre fu ne parce que assemblée commission permanente mën na dem réunir feneen fudul biir assemblée commission permanente mën na dem réunir feneen sa leader nag fekkee naa man bañ koy auditionné commission ba waaw assemblée nationale assemblée lañ ko auditionné mais dama ne la commission ad hoc nga xam ne elle est mise en place pour loolu texte bi ko organisé mhm. waxul benn yoon ne député bi ngeen di auditionné war ngeen ko auditionné biir assemblée nationale wala palais de la république wala Sandaga bind ko sa émission bi yow bu la neexee des fois nga délocaliser ko dem defee ko feneen bis bu ne ñu gis ko ni donc il faut arrêter cet amalgame yi ngeen di def loolu amul. président Macky Sall téyewul kenn. képp koo xam ne tey jii yaa ngi yuuxu kuy jooy yaa xam la ngay jooy ku sa gémmiñ di naaj yaa xam la ko toj. c'est pas compliqué. Babacar <laughs> sacré ah bien sûr parce que il faut que aussi des fois ak nit ñi dans le blanc de l'œil et qu'on se dise des vérités. alors tu xool à travers même le plateau euh, gis nga les les crispations des positions. voilà et, et parce que damay wax ne gis nga Pape ñu defee tuuti histoire. Hmm. Euh, avant élection présidentielle bu 2000 yi nga xam moom moo indi première alternance on avait à peu près une situation comme ça avec de fortes tensions politiques Après 99, il y avait de fortes tensions politiques. Il y avait beaucoup de débats autour du fichier électoral. yaa ngi koy fàttaliku. les cartes israéliennes wax carte israélienne ak fichier bi dañ ko migré na dem présidence ñu ngi koy yóbbu fële et cetera coow lu bëri amoon. boîte noire. waaw yooyu yëpp wax nañ ko fi ba ñuy ba société civile nan la taxawee dañu jóg à travers benn kuréel boo xam ne ñoom président Mazine Ndiaye ñoo ko taxawal ñuy wax. front d'action Babacar foofu naa la dama lay jox benn que tey jii. foogoo ne étape boobu dépassé nañ ko parce que aussi la crédibilité de la société civile yéen waxuma leen mais aujourd'hui gis nañ crédit une société civile qui est très liée au pouvoir ñii tamit pouvoir bi waa opposition bi dañuy wax ne ñii du waxtaan ak ñoom ñii du ma waxtaan est-ce que crédibilité boobu mi crédibilité bi mu fi ba tey. waaw en fait comme je dis rek xam nga tey société civile nekkul benn réalité. bu mm. homogène homogène absolument mais en tout cas ñun sensibilité bi nga xam ne moom la ñuy représenter à travers la plateforme des acteurs pour la transparence des élèves du ci foofu la ñu teg suñu tànk maanaam position de neutralité pour mën a def médiation entre les différents acteurs mm-hmm. damay wax ne 2000 amoon na li ñuy wax fonds d'action de la société civile bu taxawoon ci affaire yi ba jàmm am 2007 boo xoolee ba ñuy def élection amoon nañu situation bu xaw a demee noonu parce que dañu jógee ci refonte totale du fichier électoral ñu indi les cartes d'identité numérisées moom ay contestation et cetera et cetera société civile jóg organiser audit fii ci centre commercial Sicap Plateau ba ñu defee audit ba lañu ñu wax ñu ne malgré xëy na peut-être ay double apparent yu amoon ci fichier yi qui pouvait laisser planer des doutes quand même mën nañu dem élection le fichier est assez fiable donc ñu dem élection 2012 ba ñu ca ñëwee def nañu euh, beneen audit 2009 def naa ne waa Benno Siggil Sénégal ñoo ko def à la veille des élections de 2012 opposition bi également contesté fichier électoral bi président Wade ne nañu def audit international def audit international ñu jóge ci taxawal comité de veille société civile jiite comité de veille boobu également ñu fexe vraiment ba waxtaan. mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. ay situation vraiment yu yu apaisé am. Mm-hmm. tey ñun société civile suñu tànk foofu lañ ko teg cest à que tey nous ne sommes pas pour Karim nous ne sommes pas pour Khalifa mooy ñu fexe ba acteurs yi mën a toog waxtaan pour dal mën a am ci réew mi ñu mën a xool autour des règles de la compétition électorale naka la ñu war a mën a def pour consensus am mais li nga xam ne mënuñu koo nangu xaw ma tey en fait fan na ñu mën a jaara ah, ñun ñu ngi ñu ngi xalaat ñu ngi gëstu. ñu ngi mhm. waxtaan ak nit ñi. mais li nga xam ne aussi c'est inacceptable mooy ñuy dem ci ay jomante que. ñaari mbër wala ñetti mbër vraiment bëgg a sëq lang benn mbër bi daal ne kat la may changer règle du jeu yi loolu aussi c'est inacceptable ak lu ñu nekk nekk société civile lu ñu bëgg bëgg bëgg jàmm aussi lu ñu bëgg mooy appeler les parties à la raison pour que les règles du jeu soient respectées, par toutes les parties te li ñu gis actuellement non au regard des modifications yi am

am la mais dama ne L31 xam nga bu fekkoon ne L31 L L L57 kenn kenn laalul kenn laalul LO115 kenn o LO116 même bu fekkee ne ñu appliqué Karim les dispositions de l'article L31 du ko tere nekk candidat parce que LO115 o 100 ak L57 dañ ko. permettre mu mën a nekk nu mu tëj. même nekk candidat parce que dina déposé dossier am ñu. c'est-à-dire même buñ ko laalu woon. bu déposé dossier am ñu ñu ah, mais quand même. mais mënuñu woon bàyyi loolu. mu dem ba déposé dossier bi conseil constitutionnel dama ko wax ne moom li ñu wax taxawul. mais léegi parce que même buñ mais mais mais ñi koy waxtaan la. non non a mais c'est la c'est la ce sont les acteurs politiques. la société civile mais non. la société civile donc euh, euh, l'élection présidentielle mbiru parrainage lañ fa doon wax ak mbiru nu mu tëdd bulletin unique ak mbiru caution. les conditions d'accès à l'élection présidentielle. loolu lañ fa doon wax mais mbiru modification article 57. yow laaj naa la sànq ndax yaa ngi foon nga ni nekkoo foon. kon kay xamoo li mais d'accord euh, bon pour les sénégalais qui nous regardent ah dañoo damay préciser rek pour les sénégalais qui nous regardent vraiment ñun def nañu fay ay série de débats affaire discussion concertation. ci li nga xam ne moo di élection yi lafa fa génne woon moo ci li nga xam ne moo di pre concertation sur le processus électoral lafa génne woon mooy wàllu point d'achoppement bi moo nekkoon parrainage bulletin nag les conditions mais c'est après par la suite Zator xam ga loolu oui il des points d'accord mais loolu bokku ci woon revue code électoral bokku ci lay wax dëgg rek fii ku fa sa baab man bokku ci changement code électoral électeur candidat bokku ci dañu wax dëgg rek ça n'a pas fait l'objet vraiment nu mu tëdd de discussion pour ñu mën a am consensus alors très bien maintenant su bëggoon euh, euh, kii daanelee Pape euh, Alé nga ma dama ne ce que tey jarul ñu toog ba xool tey suñu texte yi maanaam suñu code électoral naka lañ koy war a mën a tey soppee au regard tey des engagements internationaux yi nga xam ne Sénégal tey daf ko ratifié dama lay jox benn exemple. mais on est de l' élection présidentielle. non non non non kooku peut ay ah, débat yi ñëw la parce que démb. <laughs> Ah. collègue bi Ndiaga Sylla dafa wax def benn poste daa nekk l' article nu mu tëddee L31 est une violation des droits de l'homme te fi mu ko teg maa ngi wax tout à l'heure les dispositions de l'article 25 du euh, pacte international relatif aux droits civils et politiques boo xam dafa wax ne tout citoyen a le droit et la possibilité sans aucune discrimination de prendre part à la direction des affaires publiques soit directement soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ensuite de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques honnêtes au suffrage universel et égal et au scrutin secret assurant l'expression libre de des électeurs donc au regard de ces dispositions tey article 31 normalement warut mën a xañ nit muy Karima muy Massamba muy Mademba mu bañ a nekk électeur. d'autant plus ah, que c'est 5000 personnes alors deux minutes laay may deux minutes deux minutes may ko mu kii après ñu def de table parce que pour ku nekk am sa temps de parole. balaa Zator bi wax ne. ñaari moom yëf yu yu yu yu bokkul bi njëkk mooy. Hmm. Zator bi mu wax tout à li ñuy toppee Karim Wade moom la ñu mën a topp Macky Sall différence bi kay mooy Macky Sall dañ ne ko foo jëlee mën a Ablaye Wade dama may Ablaye Wade na mayu ma ko. yow léegi procureur nga quoi. non oui ah, pas de problème c'est pas le problème mooy li ngay expliqué Tito rek ma wax ne yéen a yor procureur yéen a topp ku lay neex c'est ça que tu es en train de me dire. non parce que je suis d'accord sur nguur gi te nguur gi jàpp ngeen ne doole la ku ngeen bëgg a dóor dóor ko ngeen jàpp am ngeen si sañ-sañ. ba peuple bi di fa fekk nag amul benn réew mu ay mën a toog di teg ay galgal di jaay doole abadan daay man ou le peuple se réveille. amoo benn mandat wu peuple bi munoo waxal peuple bi leen loolu. tu n'es pas le peuple. tu n'es ni député ni rien du tout nga merci jox mandat merci donc amul benn peuple benn état bu ñuy toog di tegale te ba un un moment ou un autre ñun nag ñooy jël décider rek suñu problème bi. C'est la première chose. La deuxième chose, affaire levée immunité parlementaire du problème ndax dañ ko war defe fii wala ndax dañ ko war a defe fële. La question qui était posée à l'Assemblée et bu taxoon avocat yi bind président Assemblée nationale c'était de savoir ndax Khalifa Sall ba ñu ko falee ba noppi dañ ko war a wala wala ñu ko libérer ndax day am immunité parlementaire à partir de son élection waral warul am immunité parlementaire à partir de son élection procureur génn na amul immunité parlementaire ministre de la justice na amul immunité parlementaire ñu ñëpp ko déglu ñu dox tuuti état bi di boppam ne ah kii kat maa ne woon amul immunité parlementaire waaye assemblée léegi maa ngi leen di saisir pour ngeen lever immunité parlementaire am loolu mooy kàcc bu njëkk bi. ñu doxaat deuxième chose tey CEDEAO bu ñu demoon saisir nañu kii kat ngeen ko waxoon libéré depuis booba ndax jamono yu ngeen ko téye diggante ba ba ñu ko falee. ak ba ñu koy lever immunité parlementaire détention arbitraire la woon défendre ma sax sama bopp ni loolu dañoo abusé de l' assemblée nationale. ça veut dire que assemblée nationale ba muy jóg di décider ne Khalifa Sall waruñu koo libérer donc man naa ko war a fekk prison CEDEAO nee na déedéet nekku leen woon ci dëgg da ngeen ko waroon a libérer état bi da ko waroon a libérer. mu ñëw assemblée nationale siège ak ay moromam ñu entendre ko librement bu ñu ko entendre assemblée décider ndax dañuy lever immunité parlementaire wala kenn du lever immunité parlementaire. Mm-hmm. ça c'est aujourd'hui des vérités constantes lu kenn mënut a dindi état bee ko njëkk a weddi CEDEAO ñëw confirmer waat quelle que soit la position bu diw ak diw mën a dindiwaat loolu mooy li nga xam ne mooy lu constant. deuxième chose bi nga xam ne moom moo fi nekk aussi bien ce qui a concerné Karim Wade que li concerné tey Khalifa Sall la vérité absolue. mooy xalifa Sall da ngeen ko war a libérer parce que juge communautaire bi nga xam ne ay décision dañu ne d' abord moo sut suñu ay décision mooy la primauté sur le droit interne maître Sall xam na lu may wax deuxième décision bu mu jël day appliqué wu directement dans dans le pays yi nga xam ne ñoo bokk CEDEAO amul fenn fu muy jaar dès lors qu'un juge décide là au niveau de la CEDEAO mhm. amul benn protocole amul fenn fu muy jaar dafay appliqué wu directement ça aussi c' est droit ñaar yooyu dès que am na dañoo wax en war a tirer toutes les conséquences de droit bari avocats yi saisir nañu Demba Ka ñi pour lui demander que les préalables soient respectés donc loolu amul tam discussion maintenant nag ay nit bu mënuñoo toog fii tey ñu ne lii moom a arrangé dama koy appliquer nañu na juge bi condamné Khalifa Sall mu jël ay bagaasam dem tëdd rëbës bu ko juge libéré tam noonu ngeen wax am mat ak fair play gu toll ni comme kii libéré nañ ko tey nee nañu procès bañ ko def baaxul nañ ko libéré mu dem bu ngeen jëlaat yeneen décision après ngeen dem jëlaat merci merci euh, de dernier tour de table yow <laughs> par rapport ak euh, le combat waa dafa am euh, ñaar yu ma bëgg wax bi jiitu mooy dañu ñëw 2000 ñu dem élection ba ñu demee 93 dañu njëkk dem élection ñu pare contestation bëriwul ñu ne Abdou Diouf gagné na ñu ñëw 2000 ñu dem élection ñu ne Abdou Diouf daan nañ ko Ablaye Wade moo gagné ñu ñëw 2012 te ba Ablaye Wade gagné Abdou Diouf daf ko woo félicité moom ñu ñëw 2012 dem élection ñu ne Abdou Kale Macky Sall daan nga Ablaye Wade Ablaye Wade jël téléphone woo ko félicité ko code boobu le amul warante ne bu baax ndax moo tax ñetti président ñu am ko ñu am Abdou Diouf ci lu ñu weddiwul ñu am Ablaye Wade ci lu ñu weddiwul ak Macky Sall ci lu ñu weddiwul loolu ñu def yëpp la Macky Sall dindi defal code boppam wax waxtaanu ci kenn muy code 2007 code bi ngay wax code 2007 la code bi ñu nekk code 2017 la loolu la Macky Sall jëkk def ne damay dindi lépp damay wax dara réew mi ku ko jot kenn jotu ko ci judd parce que kenn gënul sa morom judd mhm. kenn jotu ko ci xam-xam kenn jotu ko ci xeex kenn jotu ko ci alal dénkaane ka nga wóolu dañuy wóolu nit ñu dénk la réew mi nañ la nañ ko nañ ko nangoo ci sa morom nañ la ko dénkee Macky Sall nag dafa taxaw ne moom ala kulli aal day toog buggul dina bëre te mooy tànn ku muy bëreel koo koy benn ñaareel ba damay wax parce que loolu aussi ci yoon la gis nga euh, peine privative euh, de droit suñu lay condamné dafa am pen principal ak les peines accessoires lu ñuy wax peine complémentaire gis nga la privation des droits de vote est une peine complémentaire dama lay wax ci tubaab laa koy waxee li nga xam ne ne bi conseil constitutionnel yu mag yi dëkk yu mag yëpp bu y compris conseil constitutionnel bu France daf ko wax dañu ne le juge constitutionnel français affirme et je cite que le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique que la peine emportant interdiction d'être inscrit sur une liste électorale et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective qui, qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. dégg nga loolu daf am solo parce que nit moom laa doon wax nga tey dañ ne ku sàcc yenn sàcc yi. dañ lay tëj kaso wala ñu alabaan la mooy pen principale wala ñu def la interdiction de séjour du da ngay dégg interdiction de séjour rek nga ni nga jeewu suba teel rek jël ma man parce que dafa def dama def njomme rek nga ne ma dañ may interdire il faut que ñu prononcé tant que prononcé parce que suñu lay interdire il faut que ñu wax ñaata mooy durée bi kon yooyu moo tax ma ni réew mi dañu toll foo xam ne fii euh, yëfu maa tey la dañuy wax su dee kenn ku ci nekk rek c'est trahi bàmmeel la parce que nag gis nga fii kenn du yóbbaale sa morom àllaaxira kenn ku nekk ak sa jëf la et que jot na wa ilaa kilifa yi dañ ciy wax tey ne mbir mi nañu delloo lépp ci yoon ñiy atte ak ñépp nag ku nekk def yoon wa ilaa dañ koy déggoo ci loolu wa ilaa ëllëg nag suy toj parce que parce que déggoo li ma la wax xare la bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk su dee dañ fay toll foo xam ne ne fii dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy féewaloo ba mënatuñu déggoo ci dara kenn ku ci nekk fëgg sa dënt foofu la ñu toll kii taxaw ne man damay bëre yow doo ci bokk par force ak lu ngeen ci wax lu ngeen ci mënti wax Khalifa Sall dama koy wax ci avocat mi laa bokk su ma sañoon ëllëg mu bokk ci ku ma indil kaamil ma dóor ci sama loxo balaa ñaari weer atte bi yëpp jeex man maa la wax lii su ma la ko waxul. damay xaaju jox voilà loolu du euh, sotti. su euh, xam nga bett bu ma lay déglu des fois say wax dafa may neex ndax dafa am fond ngëm-ngëm mais doo dem ba ca biir ba ca fond ba da koy cuq rek bàyyi. lu war a mën a tax nga jàpp ne yow mii maître Amadou Sall yaa war a gën a bëgg Macky Sall réew mii Sénégal yow. daf maa jaral kaso non may ma may ma rek dafa def Macky Sall dafa nekk premier ministre. dem voté par force de sérénité. parce que dafa déedéet waaw déedéet mën naa déglu da ma wax. may ma la différence dama la koy wax. après nga continué man sama temps de parole la. ba tey naa la ci tontu. amul benn baromètre bu la war a mën a may nga jàpp ne yow yaa gën a doon sénégalais Jean wala Paul wala Pierre amul. dafay def lu ma dul def rek. gis nga li ngay wax nii mais du du lu bees Sénégal ay candidats ñu génne leen ci élection pour x raison yéen du yéen a génne woon Youssou Ndour yéen a génne woon Sarr yéen a génne woon ñeneen mais c'est quoi le problème ñun sénégalais yëpp ñoo war a mànkoo ne képp ku jël suñu alal ñu tëj la ju ëpp juróomi at waratoo yëkkati sa loxo ne dama bëgg a jiite réew mi parce que yow ñu dénk la as ministère wala ab agence nga lubal lu ëpp 100 milliards. waaye bu ñu la joxee suñu réew xanaa ñun du ñu lekkati wala duñu ñu naanati. kon de Macky Sall dootuñu lekkati ndax mais leer nañ dafa am des questions dafa am des yoo xam ne dafa laaj que ñun ñëpp ñu man ko ko d'accord ko muy société civile opposition tey mooy majorité suba majorité tey mooy opposition suba gis nga ñun ñu fi toog di wax nii wéerul kenn ne danañ voté 2019. yàlla rek a xam wérul kenn. wóoru la ne di nga ko fekkee wóoru ma wóoru kenn ci ñun ah, donc hmm. nekk fii bëgg wax li xew suba kooku euh, dafa doon ci mbiru yàlla xam nga fu ma bëgg daaneele hmm. dañu nekk benn xam ne Sénégal ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ko bokk kenn amu ci intérêt Sénégal tàkk parce que sama kër bu tàkkee da nga ñëw su ma amee dëj di nga ma jaale si et vice versa nous n'avons pas intérêt ñun ñi ñëpp nag di toog di xam nit ñi na ñu jóg nañu lii déedéet gis nga Sénégal gii incha allah le 24 février daanu voté ci jàmm nit ñi xëy naa ni café comme ni ko Pape Alé waxee gis nga élection législative yi amoon na ñu ne woon dëkk bi day tàkk di. très parce que nag bu ñu jàpp ne ñun politiciens solo la loolu ñun ñëpp ñoo ko bokk je pense toogaay bi rek toogaay bi toog nii rek war na tox jàngat. parce que jàngat mooy et puis jàngat bi li ci am solo moo di ku nekk opposition ak ku nekk nguurit war nga mën a def ay jàngat boo nekkee ci opposition ngay digaloo mën boo nekkee nguurit nga jëf lu méngoo ak yoon. loolu rek moo ci am solo parce que seul le Sénégal moo ciy gagné. ñun ñëpp ñoo ciy gagné. alors pour terminer fàttaliku rek ay kàddu yoo xam ne Sidiki Kaba waxoon na ko fi ci Karim Wade parce que may wax ne il faut que ñuy def ay rappel historique parce que lu toxoon mu waxoon yooyu parce que boobu ñu bëri dañ doon wax ne derrière CREI yi affaire politique moo ci nekk mu ne loolu amu ci tey histoire dañu dab ba coow li bari bari waat encore je pense que ñun ñëpp dañ dellu si xel yi ñu toog. teg les règles du jeu ñëpp respecté ko ñu dem ci ay élections yoo xam ne day leer nañ ku gagné ñu xëy suba teel naa ni café félicité la mu jeex. ay ci on termine avec ça et puis euh, je vous donne rendez-vous mercredi incha allah pour notre numéro de votre émission décryptage. Amadou Sall le 25 loolu amul. loolu amul ndax euh, su fekkente ne. looloo tax procès bi am gis nañ ne juge yi nee nañu duñ ko topp ci article 334 loolu peine complémentaire la ndax suñ la àttee mën nañ la privé jël li nga xam ne mooy droit civique ak droit civil maanaam mënuñu la fal te mun mënoo nekk candidat te loolu moom mii droit boobu am na ko donc par conséquent loolu suñ ko waxee loolu mëngël ak dëgg